salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñu fi daje ñëpp. ku ci sa tur ak sa sant. di ci jiital suñu kilifa yi. ñoo ngi suñu père Pape Birahim mag lu jógee les anciens gloires di nuyu journaliste yi d' abord di nuyu autorité yëpp yu fi teew. di ci suñu père waaw. père ba du boobu Papa Sow rek boobu Sénégal yëpp la mën naa ko yem bañ a yemale parcelle parce que lépp lu waay di yëngu loxo moo ngi ci muy papa ci Papa Sow ak père Aliou di papa Papa vraiment am nañ contentement trop ñëw teew fii ànd ak Papa Sow ci bisam bu rëy bi papa lii jomb ko parce que yàlla xolam rek la koy fay nit bu baax la du tànqamlu kenn xam ku wootee lu mu ndaw ndaw moo ngi fa tax na moom kese kese kese du wéet mukk du mës a wéet fu mu nekk ak lu mu dugg loxo waa parcelle ñëpp a ci am na li nga xam ne mënuñu ko wax xam nañ ko maa moom ci biir mais lii suñu yëf lay doon bu soobee yàlla dañ koy ñaan incha allah yàlla may ko ndam d' abord ci combat bu jëm équipe bi nekk équipe bi gën a mag incha allah yi ñuy dégg ci Sénégal vraiment kontaan nañ xam nga di talal encore ñëpp loxo ñu ñëw jàppale ñu puisque parcelle la moom la ñu am. fépp fu waay nekk rek ñu ngi lay tàllal loxo ngeen ñëw jàpp ci écrit Papa Sow bi parce que Papa comme ni ma wax rek ñëpp la nit ku oyof la vraiment bu ko yàlla fayee xolam rek moom du sonn yàlla fay xolam. mbébét yi ñu am ci écrit bi yàlla yóbbu ko sax fu kawe jot bi incha allah. vraiment kontaan nañ ñi fi teew ñëpp ñu leen lim ku lim da ngay jum mais daal ñu ngi ñëpp waaw muy journaliste muy ancien gloire yi muy mbër yi xam autorités yi ñëpp daal ñëw leen nuyu vraiment kontaan nañ di nuyu tamit suma père Birame ma àndal nii xam nga muy lépp ci man kontaan nañ vraiment wasalaamaaleykum